wàllu sàngara bi dama waatal ci yàlla maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni ki li nga ma ko te mu bëgg bàyyi sàngara keroog bu fi xëysee ba balaa moo jóge ci biir néeg bi mu bàyyi sàngara ci kattanu yàlla ci amul gannaaw suba amul suba tey tey tey tey tey boo ko indee tey tey tey mu bàyyi sàngara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 di ñu gën a jox courage pour ñuy continuer li nga xamante ni moom la ñuy def et je vous aussi que lu xew TV n'a rien à voir avec Marodi TV maanaam lu xew TV jotewul dara ak Marodi TV vidéo yi ñu nekk di def ay analyse la yu ñuy def ci série bi nga xamante ni si nii waa Marodi TV ñoom ñoo ko produire muy maîtresse d'un homme marié parce que souvent dañu gis ñoo xamante ni ñu jël suñu numéro ñuy jaawale ak Marème wala mu ñuy jaawale ak benn acteur bu nekk ci série bi wala mu yaakaar ne ñun ñooy waa Marodi TV mais ñun ak Marodi TV bokkuñu. waxoon nañ ko nag ci yenn ci suñu vidéo yi passé donc dañ koy rappeler rek parce que jusqu'à présent am na ñoo xamante ne dañuy jël di woote yaakaar ni tey acteurs yi nekk ci série bi la ñuy waxal te analyse yi ñuy def suñu ay idée personnelle la donc dañuy faral di def bu ñu seetaanee série ba pare point yi ñu ci gis. gis ni tey jii lii nii war na mën a doon njariñ ci dëkk bi ñu waxtaan ci loolu kese la alors encore une fois liñ ci jublu mooy lancer ay messages yoo xamante ni war na mën a yeete te nag soxla nañ ci xalaatu ñëpp kenn ku ne loo ci xalaat ñu ngi lay ñaan boo ko mënee di def ci commentaire yi wala nga ñu koy envoyé par message vocal ci sunu whatsapp dinañu jàppale bu baax baax ci li nga xamante ni moom la ñuy def parce que benn objectif kese lañ am muy yeete ci loolu kese lañ ci bëgg di lancer ay messages pour nit ñi mën ci jariñ numéro bi nag li waral ñu bàyyi ko fi mooy ñi nga xamante ni dañu am histoire bu ñu dund bëgg ko raconter nit ñi ñi nga xam ni aussi tamit dañu am ay contribution wala ay suggestion yu ñu bëgg a def ci li ñuy wax laa mën nañ jël numéro bi contacter ñu WhatsApp wala téléphone ça dépend de ak ñeneen ñi nga xamante ni dañu bëgg publicité maanaam di yëngatu ci wàllum njaay ak lu mu mën a doon bëggoon mu am visibilité bu jëlee numéro bi contacter ñu dinañ ci waxtaan ak moom loolu moo waraloon ñu bàyyi fi numéro bi mais numéro waa Marodi TV alors tey wàllu xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo analyse buy concerner toujours seen série maîtresse d'un homme donc bu ñu seetaanee épisode vingt six ba pare dañ ci note woon quelques points bëggoon ci def taxaw seetlu ak yéen point bi ci njëkk mooy dañu gis papay Jalika mu dem ci rak yi di ko jox xaalis je diir dire que ni pour corrompre ko. parce que dafa am yenn borom xaalis yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñoom il pense que xaalis mën na jënd lépp ci àdduna te def fi bëri am na nag yoo xam te ni si ni da koy def ça marche parce que mën na nekk ni jigéen bi dafa nekk position boo xam te ni position de faiblesse la. boo ñëwee nga buux ko xaalis bu xalaatul rek mën na ko jël ba pare topp la ci sa bëgg mën naa ni da nga ko chantage parce que tey nekkul ak loo xamante ni si nii. sagoom moo tax mu def ko bu amoon li ko gënal day am li ñëpp am am yow li nga am ba doo ko mën a jënd ci xaalis mais yàlla mooy may ñi xañ ñi donc nit ñëw na bëgg liggéey ñu chantage ko parfois di ngeen dégg ñuy wax promotion canapé dafa bëri trop ci réew bi nit day ñëw bëgg benn place doon jigéen nga fekk fa chef bi wala nga fekk fa koo xamante ne dalay lay wax moom moo lay jàlle di la proposer yenn yi soo bëggee mu mën la régler li nga bëgg soo bëggul tamit mu bàyyi sa moroom dikk donc avant ñuy lancer message jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci situation yi mel noonu d'abord góor ñi nga xamante ne ñoo leen di proposer lu mel noonu dañuy njëkk a waxal nit bu ñëwee di wut si liggéey jàppee ko comme sa benn sœur tey li nga xamante ne si nii bu nekkoon sa sœur doog ko def kon waroo ko def sœuru jàmbur ndax fii nii kenn bëggul tey sa sœur dem ci benn bërëb di fa wut liggéey ñu koy proposer yenn yi kum ci doonoon sa sœur du la neex kon ki nga xamante ne si mooy ñëw ci yow di liggéey. boo ko jàppee comme sa sœur boobu noonu doo yegg ak moom fenn entreprise nga yor da soxla personnel tey ki nga xamante ne si ñëw na bëgg liggéey su fekkente ne moom personne am correspondant na ak type de personne bi sa entreprise soxla mën nga ko jël mu liggéey sans condition mais ay soo ma defalee lii ma jox la lii wala nga jël ko tey début bi di ko neexal dem ba ci biir nga bëgg dugal yoo xamante ne bokkul ci diggante bi su nangoo nga bàyyi ko mu toog su bañee nga dàq ko loolu dafa ñaaw. te bépp góor boo xam ni yaa ngi koy def war nga xalaat ne bu nekkoon sa sœur du la neex message bi ñuy lancé nag jigéen ñi nga xamante ni situation yi mel noonu dal na leen wala tey ëllëg mën na leen a dal mooy que nit dangay ànd ak sa dignité nit da ngay ànd ak sa fulla ànd ak sa ngor xam ni fii yàlla rek moo fi nekk tey lépp loo xam ni sa wërsëg la di nga ci jot ci kàttanu borom bi bala ngay génn àdduna donc dañu war a gëm sunu borom ba pare. doyloo ko wóolu ko xam ni lépp lum def dafa doon loo xam te mooy li gën comme nga koy waxee rek wërsëg du maxe kenn ku ne li nga xam te mooy sa wërsëg li nga xam te ni loolu nga war a am ci kaw suuf bala ngay génn àdduna di nga ci jot donc bëgg tekki bu gaaw wala bëgg tey yenn liggéey yi bu mu la jaral ngay jaay sa bopp bu mu la jaral ngay jaay sa ngor parce que parfois mën nga ko def am li nga bëggoon. mais soo toogee yow kese nga wéet non bu boobaa di nga xamante ne man li ma def ba am lii lu ñaaw la te su boobaa yow sax doo am conscience tranquille parce que parfois bu loolu dikkaatee sa bopp di nga xam ne man li ma def nii war ma ko woon def tey lu ko jaroon lii liggéey bi kese parce que àdduna dafa gudd tànk man nga ko def sax ba pare am liggéey boobu noonu nga xëy liggéey boobu noonu entreprise ba daanu nga perte liggéey ba après li nga defoon anamu léegi fan la mujj. te même su fekkoon dañ dafa nekk loo xam te ne soo ko defee am ci ay milliards à vie jaru ko parce que dignité dafa doon loo xam te nit mënu ko jënd ngor nit mënu ko jënd te nit ku ne yaay amal sa bopp sa fulla ak sa fayda da ngay liggéey yor nga say diplôme présenté nga ko buñ la jëlee baax na buñ la jëlu nga dem seeti faneen li ñu naan bu yoon jeexul waaxu suddu jeex kon bu leen nangu kenn di leen chantage ci yenn mel noonu dañuy faral di wax nag naan jigéen ñi matuñ bien vrai que dëgg la mais comme góor bi nga xamante ni si moom moo leen war a jël considéré leen kon sëram war leen a mën a conseiller teg leen ci yoon def ko mu leen di proposer yu ñàkk fulla yéen tamit am leen fullee ngeen man ko bañ parfois nag di nga nekk ci benn position boo xamante ni situation ba ngay bàyyi kër ga day metti bëgg nga dimbali parent yi gàlle bi demewul noonu yooyu yëpp noonu saaf sa comprendre mais bu mu la mukk mukk mukk nga jaay sa dignité parce que lépp day jeex mais ngor fulla jom dignité dafay des kon ak nu situation bi mën a demee gëmal borom bi que ni moom moo la ko teg te mën na ko teggi te boo duggee ci yenn nii rek ëllëg tamit bu ko teggee da ngay rus loolu lañu naan ku mar taxa naan potit bu robinet yi ubbee nga rus kon ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci loolu dafa doon phénomène boo xam ne dafa bëri mais kenn ku ne yaa mën a bañal sa bopp nit ku ne dangay bañ. alors bu ñu jógee ci point boobu ñu jàll ci deuxième point mais avant ñuy dugg ci suñu deuxième et dernier point dama bëggoon a joxe sama xalaat ci li nga xam te ne loolu lañ gis ci épisode vingt six bi parce que tey série bi ñu ngi ko tuddee maîtresse d'un homme marié et tey dañ gis que ni Cheikh takk na Marème mais su Cheikh takkee Marème donc Marème nekkatul maîtresse su Cheikh alors tout série bi. kon je pense que laa dina am benn problème parce que maîtresse d'un homme marié lañ ko tuddee donc si toutefois Cheikh takk Marème donc Marème nekkatul maîtresse alors donc maintenant léegi série bi kan moo ci nekk maîtresse d'un homme marié donc il se peut aussi que tamit loolu ay gént la parce que xamaguñ suite bi peut-être aussi tamit mën na nekk réalité même tamit su nekkee réalité aussi tamit ñu xaar suite bi parce que tey waa Marodi TV je pense que lépp lu ñu def rek am na fu ko teg mais juste mon avis bu fekkente ni dëggantaan Cheikh takk na Marème alors dans ce cas kan mooy nekkati maîtresse bi ci film bi. donc loolu sama avis personnel la. mu nekk question boo xam te ni pour l'instant nii mën naa ne moo tëj sama bopp. donc loolu benn parenthèse la woon rek bu ma ubbi woon. donc bu ñu continuer ci suñu deuxième et dernier point bi nga xamante ni ça concerne Biram parce que. épisode vingt cinq bi ci fin bi dañ gis que moom muy waxtaan ak joor ni ko moom baayam la rey loolu moo waral comportement bii nii bëri na ñoo xam ni ñu ngi ci société bi di dox peut-être que boo leen gisee doo xam ñoom réellement lan mooy seen problème parce que peut-être duñ la ko wan mais au fond de ça vapa day am loo xamante ne si moo leen di ronger ci biir xamuñu yan condition ci la reyee baayam mais rey sa papa ba pare dund ak moom. loolu dafa doon lu compliqué lu doy waa loolu nag moo waral biram di am yenn comportement yi di def yenn jëf finalement day dem ba loo xamante ne sax du mel ni moom moo ko tey mais mbir yi ñoo ko ëpp doole te genre boobu noonu pour nga canaliser leen day doon loo xamante ne day jafe parce que li nekk ñoom moo leen ëpp doole moom moo leen mën te loolu moom moo leen di contrôler dootul nekkati lu ñuy def ak seen sago mais dañuy def uniquement parce que ils n'ont pas le dañuy énervé wu foo leen fekk te bu ñu wéetee bu seen xel demee ci loolu rek dootuñu nekkat yi et donc ñoom pour mën a fàtte lool dañuy préférer soit ñu jël alcool wala ñu dem jël tabac wala genre yu mel noonu pour jéem a fàtte seen stress et je vous dis que nii c'est pas la meilleure solution lu mën a xew ci àdduna bi am na ay solution yoo xam te ni si mooy li gën dem jéem a xool benn psychologue waxtaan ak moom. explique ko sa problème moom man la conseiller man la jox comprimé yi nga war a jël delloo si waat la je pense que moo gën tey ngay dem di jël alcool parce que alcool dafa doon loo xamante ni ça nuit baaxul day yàq tabac aussi même chose donc su fekkente ni yow da nga bëgg dikkaat ba pare ngay jël loo xam ne day yàq da ngay gën di yàqu mais doo mës a si peut-être que jamono bi nga ko dellee instant boobu noonu dina la fàtte loolu bëri mais bu jeexee rek day dikkaat te day gën a pire képp koo xam ne da ngay dund lu metti solution bi gën mooy nga gis benn psychologue ñi nga xamante ne si ni seen liggéey loolu la nga waxtaan ak ñoom ñu mën la jàppale mën la delloo si mais yenn yi nga xamante ni moom la nit ñi di faral di jël pour fàtte seen i stress loolu noonu du solution bi nga xamante ni moo gën et même man je peux dire que ni du solution parce que baaxul day yàq alors tey lii moo nekkoon suñu vidéo ñi ngi dellu encore une di tuub di jégalu képp koo xam ne liñ fi wax laal na la ñu ngi tuub bu baax a baax lu fi jub nag ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lu dëgg ngeen xam ne ci man mii di wax la ndax nit moo matul di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci benn vidéo incha allah